nii defe naa ne xam nañ ni téye leen fi euh, ah dina doy waar fa que xamu fi koy teg ndax gisuma ñu dañuy wax seen déontologie cest à fi ñu war a jaarale seen liggéey ndax am na manquement ndax tooñ nañu yoon ndax def leen lu warul def loolu dana jafee génne ci dossier bi man nag mënuma dugg ci dossier bi te amu la ñu wax ca biir ca mais am naa man njort ba rafet ni ah muy géey mi nga xam ne du ma muy Traoré bi nga xam ne maay avocat am ñoom ñaar yëpp ñuy ay directeur de publication nekk ay kilifa seen journaux yi tey defe naa ne ci kanam tuuti war nañoo ñibbi en tout cas pour enquêteurs yi ñoom ñu ngi nekk seen kilifa yi lu ñu décider rek moom la ñuy def mais li ma gis mooy gisuma lu ñu ne war a toppee kon war a ñibbi seen kër tey reprendre seen liggéey mooy defaat li ñu war a def dem dellu seen kër dellu seen place liggéey liggéey bi ñu liggéey parce que duñu ay bandi